des personnes qui en parlent sont menacées on a vu l'arrestation de de Bah par exemple. mais foofu xam nga bëggoon naa point boobu sax ñu njëkkee ko. parce que xam en fait. parce que xam nga lan moo lan la ñu gis la consécration. Mhm. de la justice des vainqueurs. Hmm? oui te la justice des vainqueurs c'est une justice arbitraire c'est une justice dictatoriale c'est une justice arbitraire. c'est une justice injuste. ba jaxase est-ce qu'il may ma ma ñëw rek lu may ma ma ñëw lu tax ma wax la loolu. c'est que c'est la justice des vainqueurs Bah Diakhaté xam nga lan moo indi le phénomène Bah Diakhaté. Mm-hmm. ay activiste Ousmane Sonko ñoo nekkoon ci réseaux sociaux yi di saaga sénégalais yi di saaga sëriñ si ki ci ki ci ki ci dàqoon saaga. Mm-hmm. dégg nga vidéo bu mu def. ne tas na fi ay sëy mooy tunkara mhm. bu États-Unis bu New York tas na fi ay sëy reylu na fi ay gone yaa ngi dégg saaga na fi ay nit mhm. moom mi ngi jéggalu yàlla ba pare tourné ne def na ci six cent millions maanaam un million de dollars ba pare financé na ay cocktail molotov et il le faisait au nom et pour le compte de Ousmane Sonko ouais, dans ce cas-là dans ce loolu bu amee donc Ousmane Sonko il est coupable il est coupable et pour nag loolu mu mu mu mu libérer surtout ñi nga xamante ne amoon nañu yaakaar ci ñoom mooy Ousmane Sonko balaa moo gën a garaaw balaa moo gën a weesu fii na tekki ndombo tànkam maintenant Bah Diakhaté. oui arrestation bi. foofu laay la justice qui fait son travail. wala am na lu looy looy soupçonné derrière a wax. par exemple nee naa la c'est le début de la justice des vainqueurs. les arrestations vont se poursuivre. parce que xam nga lu tax. man ci ñaari fànn rek laa la koy tegal soo ma mm-hmm. ko mayee première fànn bi mooy Bah Diakhaté nee naa la ñooñu les activistes qui insultaient les honnêtes citoyens les activistes de Ousmane Sonko moo créé baajaxate Diakhaté Bah Diakhaté fippu yaa ngi may dégg mu mm-hmm. tombeek dossier Adji Sarr moom it mu nekk un activiste non pas pour le service de Sonko mais contre Sonko mm-hmm. alors Bah lu mu waxul Ousmane Sonko Ousmane Sonko étant opposant est-ce que nit ñi ngi koy fàttali. même la première vidéo bi mu nekkee opposition mais ma ñëw rek. amul 2022 la amul mbóot bu mu so su sullilul Ousmane Sonko. amul wax bu bu bu bu tegginewul sax nga jéggal ma bu mu tegul ci daru Ousmane Sonko est-ce que yaa ngi may dégg. ba ci ay waajuram. justement parce que da doon riposter. léegi nag Ousmane Sonko bu sentir noonu ne que c'est un citoyen dont l'honneur a été écorné. Mm-hmm. mais il avait les moyens juridiques. de mettre Bah Diakhaté devant la justice de le traduire en justice. mais yow xam nga ne Ousmane Sonko dans l'opposition ses plaintes n'aboutissaient pas. non quel Alpha. justement mais quel que Alpha c'est le geste qui importait. Mhm. kii mi ngi may saaga. wala mi ngi may tuumaal. Mm. li muy wax bu dee amu ci preuve mais dama koy yóbbu ci yoon am na ñoo xam te ne Ousmane Sonko yóbbu na leen fii ci yoon.